émission doxantu ah ba léegi tey ñu ñëw si côté marché Tëngéej comme tur bi naka la. kii mooy l' international Pogba Gagne. l' international Pogba. waaw. mais Seydina Aliou ma ma taxee moom yow moom léegi nee yow da ngay sawlal de. ah man man man man man loolu bépp bi may xale ba léegi dama cee roode dama cee accro. <laughs> sawlal sawlal dama cee accro loolu sama don la. sawlal mooy sa. waaw suñ famille ñëpp dañuy sawlal moo tax man su ma sawul la rek damaa génn xeet. <laughs> ñu ngi lay jaajëfal. Seydina Alioune euh, n'est-ce pas Tëngéej dëkk. non dëkkuma Saalum laa dëkk. Saalum mais keroog bañ jaare Saalum so waa ko neen saw lal nga de. non garaawul <laughs> loolu mën na nekk ba léegi. <laughs> mën na nekk saw lal laa dégg. waaw ba léegi mën na nekk. ba léegi mën na nekk ah. mais noo dundee tàngaay bi. waaw metti rek dañ koy gérer rek. Modou Tëngéej nga dëkk wala. non man Touba laa dëkk. Touba. dëgg Touba am di nga tàngaay parce que Touba dafa tàng. mais eh, am na ñu ma ne ba nga jógee Touba ñëw ba fii ba rek. <laughs> ah waaye de. waaye laaj ah daam ñu ma ko wax. waaw de xamoo <laughs> rek. Ah. ah mën na nekk de <laughs> des fois mën nga mun nga génn sawlal am <laughs> loolu daa ah. ñoo ngi lay ah, émission Roube la ah. ok ñoo ngi nii émission doxantu grand tour bi naka la man Omar Omar Diop Omar Diop Omar moom sama doom bàyyi nga quoi Omar nooy grand Omar fii ngay fii nga nekk si marché bi wala da am da ay yitte moo la fi indi dama ñëwoon nii rek si marché bi tey dafa am lu ma doon dox soxla ok noo dundee tàngaay bi ah bon alhamdulilah parce que en fait on est en période hivernale kay nii la foo mu tànga waaw loolu la quoi. non ñun nag suñu émission tey nag dañuy doxantu mais dañuy kafaale fooree. léegi kaf fooree bi ñun dégg naa ku noon xeex nga. <laughs> loolu moom mosula am. <laughs> mosul am ah seen waa kon ñoo ma wax ne da ngaa mënoon xeex. booy baal yooyu am mosula am. kon yow mosoo xeex. moom ñun duñu xeex <laughs> ñun xamuñu xeex ñun tënkee liñ dëkk xamuñu xeex jàmm rek. jàmm rek waaw ak salaam ñu ngi lay jaajëfal ah. ok ñu si émission doxandu nee naa ne naka bu ñoom ñëpp ñu ne nice. tur bi naka la. Mara fii nga dëkk de. waaw fii laa dëkk ne. lan mooy say activité yow. ah rek. liggéey tëyër. fii dégg ma ne ñu ne pro nga bëgg doon. non booy dañuy dañuy wax rek. ah, ah. mais sa gars yi ma toogal nii nii sànq ma wax taxawee fii balaa ngay ñëw ne yow sawkat lal nga. booy ay noonu lañ. Ah. ay noonu lañ xanaa gisoo kii sama sama yére laa laa ko jox pour mu sol ko fan si lañ. mais dama leen comprendre. léegi ñu laaj la benn question. si période tàngaay bi ñu nekk. yow ak poids lourd ban moo la ah, saa taay fin boo bëggee léegi ma waxee téléphone mu ñëw fii. Hmm? mu ñëw fii nii na gis <laughs> ne polo nga bëgg doon ah? man mooy loolu. mais loolu loolu du si dara. waaw ah. waaw sa jabar la wala sa gel jabar laa ko jàppee de moom. jabar yéen a ngi def lépp lu couple di def. waaw. ah waaw. quel Sénégal. <laughs> ah ñu ngi suñu émission doxoon tey ñu tasante ñaari soxna. soxna si tudd nga yow noo kati kati ni ngay waxee seet na de. ni lay waxee. ni ngay waxee léegi man dama leen laaj benn question nan ngeen di gisee phénomène kili. <laughs> kuy kili. xamoo kili. xamoo kili. xamoo leen kili. phénomène kili bi laa laaj nan ngeen ko gisee. ñoo ngi may menacer suuf <laughs> phénomène kili baa ngi mooy kili. koy bi. ah kii moom ni muy def nice moom. dafa am feeling daal. am feeling. approuvé ah, nga góor yi ko topp quoi. ah man xaw ma nag bu dëgg neex yàlla mais man damay gis ñu par exemple nangu woon nga sa copain sa jëkkër topp ko. jamais. Ah. yow yow yow yow nangu woon nga sa copain wala sa jëkkër topp Kelly. mi toll tamit. mais Kelly virtuel la quoi mais nangu mu seetaan comme virtuel. non parce que mënoo leen ko tere ñu seetaan ko. parce que seen téléphone bu ñu ko yoree bu ñuy seetaan ko fekkee. waaw mënoo tere ñu seetaan ko. yow di nga approuvé mu seetaan ko. non je ne pense mais tey jii nii question mooy fin bi <laughs> seen copain wala seen jëkkër su ñu leen waxoon ngeen def comme këli di ngeen ko d'accord. ah xanaa suñu weetee mën nañ ko def. voilà. yow ba nii ko du ma ko def ay yëngali métti ma ko. ay yow jóge woo de. waaw bu yóbboo loolu baax na. ok gis nga li ma suñu émission doxantu ah tey nii lañ koy defee laaj gars yi nan lañ gisee phénomène bi ak beneen partie roube bi deux parties la tey noonu lañ koy defee nice. suñu émission doxantu soxna si tur bi naka la. Feuz. Feuz yow. Rama. Rama. Mm. yow noo sant. Gaye. yow Diallo. Diallo. ok daa lu ma leen laaj. xam ngeen euh, Kelly Kelly. waaw. yaa ngi suivre non ah waaw waaw waaw. waaw léegi lan ngeen gisee phénomène kili bi. ah <laughs> kili kañ mi ngi noonu rek di yàq couple ñi ñi rek la fi nekkee. <laughs> yàq couple. <laughs> couple ñi ñi rek fi nekkee. yow nag noo rek man moom du ma si wax du ma si wax. mais yow eh, d'accord nga tey jii nii sa sa far di seetaan kili wala sa sa jëkkër. non non. yow d'accord nga sa far wala sa jëkkër di seetaan. aw ma far. soo amoon jëkkër. <laughs> aw ma jëkkër aw ma moom de daa simple mais yow tey ji exemple sa far su la waxoon nga def këli di nga ko def. déedéet. lu ko. xanaa joŋe woo. ah déedéet jaralu ma ko de. ah waaw kon baax de ñu euh, laaj benn affaire mooy phénomène TikTok bi dafa am benn xale bu jigéen bu ñu naan këli gis nga ko wala gisoo ko. non gisuma ko de. xaar ma woon ko parce que day gaaw quoi. xam nga tey ji ay fen day gaaw. <laughs> kii mooy Kelly. Hmm. kii daal li na nekkee si TikTok bi. Hmm. mais kii moom li mu nekkee si top top bi moom. ah li mu nekkee. <laughs> li mu nekkee si top moom yéeme na de. kon daal moom lii doo nga mooy mooy moom day jaay wala nu mu demee noonu. ah moo ma jaaxal. ah moo ñu jaaxal. mais yow noo ko gisee nii. ah yéeme na. kii kay moom taarkaal la. mais mu kon ne war mu bàyyi. non kii kay daa war a <laughs> naa la café Touba <laughs> kii daal moom taarkaal la rek. mu kon ne ah tuwaar kaal la. Ah. daa mel ni est-ce ko ah, de non sa classe gi est baaxul ci ñoom. <laughs> ay kaal la nga joxe. waaw <laughs> ah, koo ci bar maa ma yar. <laughs> waaw baax na jaajëf waay. ok. Aatu eh, noo dundee tàngaay waaw tàngaay bi mu ngi nii ñu ngi koy dund rek. Hmm. Euh, xar suñu tànk tubéy pour jàppale suñuy waajur. moo tax ñu nekk si nii tàngoor bi rek. mais gars moo ñëw naan ma ay géwélu Pël ak yooyu noonu mu demee. non loolu dañ koy wax nii rek xam nga rek boo tàmmee ay wax. Ah. ak tamit koo xam ne ay léboo ko yar tamit. Ah. si Pël Fuuta. Ah. moo tax gars yi di ko wax. mais yow noo gisee Pël Fuuta yi yokk bu ñu yokkul kii. ah Pël Fuuta yi moom wàññeeku moom war na leen moom. wax fa dëgg yàlla. Hmm. ndax man dama nekk nit koo xam ne lébu yee ma yar du cadre Pël la laa rek. Hmm. mais sama maam bi nga xam ne moo jur sama yaay mooy lébu. Hmm. léegi yaa ngi si daan mais euh, kii nii mooy këli waaw si TikTok bi lay nekk di def yi mm-hmm. maanaam di wane ay kii boobu ak yii nii. léegi yow nan nga gisee li a ah, man de moom li ma ko jàppee mooy vie am la. ndax nit ku nekk sa vie ngay dund. ndax nit ku nekk rek boo ko bàyyee mu dund vie am. doo sonn. nit ku nekk rek nañ ko bàyyeeg vie am daal. léegi yow d'accordoon nga sa jabar wala sa gel def lii. non man sama gel du ko def sama jabar du ko def ndax du ma seetaan ñu koy def. ak si ko mais su suñ ma ka defaraloon defaraloon waaw du ma ka nangu ma bàyyi ka yéen ñaar rek mu defara la ko nga bàyyi ko wallahi azim ma bàyyi ko kon ne yow yaa raw Modou Gueye <laughs> loo dundee période tàngaay bi nii quoi ah tàngaay bi tar na trop métti na de mais ñu ngi si kawam rek xam nga góor yàlla moom mooy daj lu métti quoi xam nga xëy yendu si naaj bi ba janta bi so xam nga ne loolu noon yombul waaw ah mais parfois di nga dugg TikTok n'est-ce pas non parfois damay dugg TikTok waaw léegi dafa am benn phénomène TikTok bu fa nekk muy Kelly xam nga Kelly Kelly. waaw. Ah. Kelly. non non xaw la Kelly kii mooy Kelly. kii mooy Kelly. Kelly. Ah. Ah. moom lii la nekkee si TikTok bi. lan léegi. waaw ah nu mu nekkee si TikTok bi jaaduwul de. jaaduwul. non non mais xale yu góor yu bëri dañ ko topp. xale yu yu bëri dañ ko topp. ñoom nag ñoo xam lu tax ñu topp ko de. mais yow tey d' accord moom mu kon ne lu bon nii muy def wala. non man d' accord ma ka de. waaw ah. xam la moo tax d' accord ma ka. Ah. am na ay jeunes yoo xamante ne tey jii nii ñoom bu ñu xoolee comme maanaam vidéo yi muy def nii si TikTok bi mën nañ ko si toppandoo di jéem a roy si moom. parce que comme maanaam ñun ñi nga xamante ne ñun ay jeunes lañ ñun lii nii ñun dañ ca war a bañ. parce que TikTok nekkul ne lépp la si nit war a war a mën a dugal. kon war nañ war a mën a mobiliser wu xool bu baax. ñu ñuy TikTok quoi di joxe bon exemple. parce que maanaam di dugal loo xamante ne si internet bi doomu aadama yëpp dañ siy teg seen i seen bët loo noon c'est pas normal quoi. ok parce que moom booy dugal. léegi léegi ñu bëgg la laaj benn question léegi yow tey jii nii sa soxna wala sa gel soo la ko defaroo di nga nangu wala doo ko nangu. sama soxna wala sama gel. su ko doon def dina ko def si sutura. def ko si loo xamante ne nii maanaam ni du ko teg si bëtam si man sama digganteex moom rek la yem. ah waaw kon d' mu def ko daal sa diggante moom. d'accord naa mu def ko mais maanaam du ko def publier ko si net bi ñëpp gis ka loolu noonu sama digganteex moom rek lay yem. waaw ah. ok jaajëf xoolal fii la ñuy jaaree nag ah tey nag ñu tëj suñu émission doxantu doxantu nañ laajte nañ si phénomène kële bi am na benn bonus bu ñu leen dencal ci euh, ci ginnaaw ñu àndaloon tey ak suñu caméraman Khalifa koo xam ne booy sañse rek lay def franchement il me fait pleurer sax parfois souvent ah ngeen ànd ak seen animateur mu mu leen maanaam tey kii bi. on vous aime, hein? on vous aime tous. Merci. Hein?